salaamaaleykum mbokk internautes yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar ñu ñëw ak yéen ci xibaar yi njëkk waaye xibaar yi njëkk kat tey jii dafa spécial dañ koy jagleel mbiru Kylian Mbappé mi nga xam ne ay at ba ci ay weer ba ci ñaari fan jamono jii mën nañoo wax ne moo ci des lépp leer waaye laata ñuy ñëw ci yaatal gi kuy gan ci page bi te abonné go ñoo ngi lay ñaan nga abone bés kolos bi nga xam ne lu ñu dugg rek di nga bokk ci ñu koy njëkk a jot mbiru Kylian bappe nag léegi mu leer daanaka kat mën nañoo wax ni day des foofee ca Paris moom mii di Kylian Mbappé li ko waral moo di kat journaliste yu mag nekk ca Europe ak groupe de presse yu mag nekk ca Europe li ñu xamle moo di kat Kylian Mbappé day des foofee ca Paris li ko waral nag moo di Kylian Mbappé kat mbir ma dafa nekkatul mbiram cepp ndax kat dafa am ay président yu ca dugg ngir kat waxtaan ak moom mu toog foofe ca Paris président France woo na ko toog ak moom ne ko suñu sañoon nga des ci France jàppale Paris émir bu Qatar it wax na ak Kylian Mbappé émir nag ku ko xamul mooy buuru Qatar dalal na Kylian Mbappé xamal ko ne ko sama bëgg-bëgg de moo di nga toog ca Paris football ak ñoom bu dee ñaari at wala ñetti at sax nga toog foofee ñaari at ak ñett yooyu ma tudd sax Kylian Mbappé la mu nam ma signé ca Paris ci ñetti at lay toll waaye nag officiel agul dañu ko njortu képp li tax ñu njortu ko nag moo di journal yu mag a mag nekk ca Europe xam RMC la l'équipe ba ca marka ca Espagne xamle nañu ne Kylian Mbappé kat quatre-vingt-dix-neuf pour cent moom kat day toog foofee ca Paris. li ko waral moo di yëf yi kat dafa yematut ci football ndax ay président woo nañu Kylian Mbappé ñaan ko ne ko toogal ci Paris ay menaces tamit jot na ko loolee moo tax kat Mbappé day mujj tànn toog foofee ca Paris wéyal ak ñoom. moom Kylian Mbappé ci boppam yëkkati na téléphone am woo président wu Real de Madrid xamal ko ne kon man du mu mën a ñëw foofu ci parilaay mujj toog loolee Di Marzio ak Fabrizio Romano ñoo ko xamle kon daal Real de Madrid bëgg-bëggam boobee boo moytuwul du am. loolu nag su fekkee am na maanaam Kylian Mbappé bu demul ca Real de Madrid dina mitti lool ci waa Real de Madrid ndax kat Erling Haaland Real de Madrid da koo bëggoon. te li tax ñu bàyyi ko bokk na ci mbiru kiliyaan Mbappé loolu nag su fekkee am na dina miti lool ci waar Real de Madrid ndax kat bu loolu amee ñaari gone yi nga xam ne football am na yaakaar lool ci ñoom jamono jii dina leen ñàkk muy Kylian Mbappé ak Erling Haaland tey jii nag match bi nga xam ne Paris am na ko ci digganteem ak Metz su match boobee jeexee match ba 19h lay door ma ngay amee ca Parc des Princes match boobee bu jeexee Kylian Mbappé mën naa yëkkati kaddu xamal àdduna gépp kat la muy def su fekkee waxu ko tey jii bu subaa ci dimanche ji la fas yéene xamal adduna gépp lu muy def moo xam day dem ca Real de Madrid moo xam day toog ca Paris googee waaye daal jamono jii mbir yo dem ak toog bu fekkoon téeméer la juróom fukk yaak juróom yëpp daal jëlee ca Paris googee lay des ndax kat journaliste yi gën a mag ca Europe li ñu xam xamle moo di Mbappé day yokk contrat am toog ca Paris waaye loole lépp nag fileeg suba dinañu ko officialiser moo xam day dem moo xam day toog gaañi vidéo bi foofu la yem ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah